excellence Ousmane Sonko père gis nañ lépp rafet na you know bi la sëñ Saliou bi la sëñ Moustapha Saliou joxee xar da ko rafetlu ñun tamit tey boo ñu joxalee boo ñu boo ñu joxee xar dañ koy rafetlu tam kontaan nañu son excellence yu réew di apprécié gis ngeen xaru président Ousmane Sonko moo ma ko jox xar mi nag laay tabaski incha allahu rabbi so thank you thank you sang sang xoolal PM li ma jox ah non non war ah def te xam naa ni combattant yëpp la ko defal. Ah. merci merci son ah, excellence. dara jóg la ci combat. thank you Sénégal la ko jox. Ah, waaw mais na yaatu nag ne tufe bi yaatu. waaw tufe bi na yaatu combattant yëpp <laughs> combattant. <laughs> merci merci. c'est booy kii xaru patriote la. moom boo ko ñàkkee day day day day booy ñun dañoo xeere booy patriote yi kii <laughs> booy téye ko bala muy gaañu waaye téye ko xaru patriote la i koy ñadd dugal ko ci kaso bi sax de du téye day génn jël réew mi ndànk rek fiis <laughs> booy xaru patriote lu Ousmane Sonko jox Sankara Mbaye xam nga ni day xeere président PM xeere man ma xeere ah kii même buñ la ñaddee takk la da ngay fippu après nga génn jël réew mi xeere rek xeeru géej yonent yàlla moom xar mi lëmbe daral baa ngi nii de bari coow xar bari bayre la mouton de Ousmane Sonko xaru xaru Sankara Mbaye offert par le président Ousmane Sonko xaru primature xam daa bëri histoire nag moo tax fii rek lañ ko mën a teg xar bi daa bëri histoire daa jógee camp pénal jógee rëbës moo tax moo tax mu a <laughs> mii de nee naa leen ni président Ousmane gis naa journaliste yi nag di bind di wax lu leen neex. Mm-hmm. ni président Ousmane Sonko di dox ci tapis rouge bi muy dagg seen xol yi. noonu laa jàppee xar mi incha allahu rabbi ndar ko tabaskee ci kattanu suñu borom oh baar kii la yàlla moom dafa bari histoire moo tax ñu ba ber ko xar xar mi kii la <laughs> dafa xeere patriote la day mbëkke ah. heure bi daaw soble dix-huit mille francs bi saako caay day ah. da la xoolal loolu. barki yàlla non PM dafa xeere eh, eh, xar bi day mbëkke téye ko day mbëkke de. xaru xaru président Ousmane Sonko day bari histoire day xeere. barki yàlla ti yàlla Mamadou dañ ko beroon sax sànq dafa jam benn béjjén bi xar mi fe ba dinaa ci yow mii luñ la ji njaaxu def xar mi est-ce que du terroriste. <laughs> barki sëñ Tuubaa sama reetaan day kokkali nii day dagg xolu ñeen ñi ma ne la doxal ci tapis rouge bi seen xol yi di dagg kenn mënu ci dara lu toll ni ku sell ki jox la xar Sankara Mbaye kooku da koy ndamoo xawaar ki yonent yàlla moom dafa xaw a kii nii sonn sax parce que dafa jaar rëbës jaar jaar campagne <laughs>